salaamaaleykum euh, mbokki Sénégal ñi nekk ci réew mi ak nekk ci man Serigne Saliou bi leen di nekk turam santam di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ne finalement j'ai été libéré mais di leen ko sant nag di ko gërëmee parce que seen ñaan yi xam naa ne ñoo tax vraiment ma am liberté yi ni gën a gaawee. fi mu nekk nii je perds même les mots parce que je ne peux pas dire ma satisfaction pas parce que je suis libre mais détermination bi ngeen xam ne moom ngeen amoon dévouement bi ngeen xam moom ngeen amoon mobilisation bi ngeen xam ne moom ngeen defoon pour que je puisse recouvrer ma liberté donc vraiment maa leen sant di leen gërëm mobilisation bi ngeen xam ne moom ngeen amoon yéen ñëpp moo ma fàttaloon sax que man vraiment.